Euh, dans notre pays concernant ces élections. dëgg Mhm. c'est yaay booy baax na ñu bamtu ko rek ci kàllaamay coach ndax ñëpp mën cee euh, àgg mën cee dégg euh, yaa ngi yoon ci li nga xamante ni moom moo di sa sa déroulement bi ci li nga xam ne moom mooy élection bi gis nañ ne def ngeen ci liggéey bu am solo euh, en amont ba ci jour élec élection yi ban lecture ngay def déjà ci déroulement li nga xam ne moom moo di scrutin bi xanaa sant yàlla nag rek wax dëgg yàlla def nañ ci liggéey dëgg la sonn nañ ci àndama mais yéen itam ñëpp ci jàpp. Mhm. mais malgré tout am nay temps yoo xam ne ku ñu waxoon ne 24 dina sunu élection yi dina deme ñu démb xëy na duñ ko gëm. Mhm. Mhm. loolu mooy li yàlla defal Sénégal. loolu mooy li ñu yàlla defal ter la ko démb ñun ñëpp ñu am ci satisfaction boo xam ne coono buñ ci defoon sax fàtte nañ ko. te di féliciter. Euh, le président Diomaye nga xam ne moom la yàlla teg ci kanam nit ñi parce que lii mooy démocratie. Mhm. démocratie mooy bi ñëpp bëgg da ci ñëpp d'accord te ñun suñu lutte yëpp en tant que société civile en tant que acteur de la paix dañu bëgg toujours ñi nga xam ne li population bi bëgg rek ñun ñëm nañ ko ci fekk. il s'est trouvé que rax ci dolli nag jeunes yi nga xam ne tey jii yéen jeunes yi nga xam ne tey yéen a ngi suñu kanam dafa jot ñu jox leen yéen itam ngeen tàmbali préparer seen bopp. natt seen bopp dugg ci gouvernance mondiale bi. Mhm. ba nga xam ne nii tey bu ko defee ëllëg bi ñu tardé. donc man lecture boobu laa ci am ci jeune bi nga xam ne voté euh, voteel nañ ko démb Sénégalais yëpp à cinquante six d' après euh, kii bi ñu mujj am cinquante six virgule et quelque xaw ma cinquante six pour cent. Mhm. selon les les les les les les selon les estimations. Mhm. en tout état de cause c' éclatante. boo xam ne fàttaliku ñu nit ku ko am premier tour. tey soog a ci élection loolu nag moom mooy li nga xam ne c'est la nouveauté nga xam ne war nañ ci teg suñu baaraam et sant yàlla nag parce que ñun tout le territoire am nañ ko ñun wala suñu ay collègues ci observe ay observateurs yoo xam ne ñu ngi taxaw ci scrutin bi démb suba ba ngoon mm-hmm. ñun bi ñuy jógee koo xam ne xew na ci réew mi ci mm-hmm. élection yi ñëpp jàpp seen fulla teel a xëy jóg voté ji en masse demaat ñëpp mm-hmm. loolu nag ku mu ko rafetluwul nag wax dëgg yàlla sax bëgguloo Sénégal. te ñu ngi encouragé aussi yàlla def euh, jàlluñu ñoom ñëpp d'ailleurs les yëpp ñu ngi leen di encouragé. Mm. di rafetlu aussi seen taxawaay parce que àddina noon la. Mm-hmm. bu fekkonte ne amul ay ay concurrent élection du am njëriñ. di ci di ci jiital nag président euh, kii euh, le premier ministre amatu Ba nga xam ne xëy na moo doon concurrent direct bi. Mm-hmm. noonu la àddina aussi di ko encouragé moom ak ñu mu àndaloon di liggéey et le Sénégal ci yi c'est le Sénégal qui a gagné ku ñu mënti génn Sénégal bii rek la jóge te dañu ñaan yàlla buñ jógee ci lii yàlla tàppe xol yi foo ay nekk mën a apporter dara ci réew bi comme ni ko yeneen réew yi di defee ñun ñu koy gis ñu dajaloo fexe ba nga xam ne fu waay nekk mën a apporter dara ci lu baax ci réew mi nga def ko parce que li gën a jafe mooy lu démb li te yàlla rafetal na ko suturaal ñu dégg nga loolu ñun en tout cas au niveau de ëpp jàmm muy AFAO di yeneen soixante organisation yi nga xam ne ñoo bokk AFAO. Mhm. ñu koy kontaane ak membre société civile yi nga xam ne yëpp bii yoon dañu dox benn say toute la société civile dañu doon demante di ñëwante di échanger di ay information dara rëcc ñu ci lu kenn def keneen ki tam def ko te loolu raar na. ñu mhm. koy gis loolu itam il faut ñu saluer ko ma Mbaye. yéen itam di leen félicité ndax man du ma tàggoom di leen xool mhm. mais kenn ëpp leen taxawaay ci kii bi. yéen ngi relais mm-hmm. te xëy na bu du woon yéen dina am ñoo xam ne dinañ réer mm-hmm. donc presse bi itam wax dëgg gàcce ngaalama ñu ngi leen di jox yéen itam lépp looy xam ne mooy seen mérite ak seen wàccuwaay mm-hmm. di leen ñaanal vraiment yàlla defal ñu yeneen élection yu demee nii te bu ñu ci jógee ci lii liggéey topp ci qu'on fasse moins de politique et comptable justement je pense que qu'on fasse moins de politique nekk na attente yi nga xamante ni bokk na ci li ngay xaar ci euh, gouvernement bu bees bi di ñëw waaw man daal bu ma sañoon ñu élection yi ni ñu ko dispersé nii sax ñu waxtaane ko waxuma ñu dindi dara de mais comme ñoom yàlla jiital na leen ñu waxtaane na fait que dix-huit mois bu ne ñu am élection ñun société civile mënuñu rafetlu loolu parce que dañu xam xaalis bi ciy dem li mu mënoon a gas ci ay teen li mu mënoon de développé ci ay nit li mënoon dimbali ci ay pauvre ñun noonu la ñu xoole yooyu lu nekk lañu yore donc bu ñu sañoon élection yi li ñu ko mën a dajale rek ñu dajale ko voté ko nit ñi ku ne toog sa place ñu ngi commencé liggéey. parce que réew mi soxla na actuellement na ñu taxaw ci liggéey. ça c'est bien passé nañ ba pare. mais mhm. lii war nañ cee def ay waxtaan xoolaat suñu constitution xoolaat suñu armada juridique bi. Mhm. liñ ci war a jooyant liñ ci war a defar yëpp ñu defar ko waxtaan woo xam ne ñu ca war a bokk yëpp dañ koy bokk. sottante xalaat jàppale aussi les jeunes yi nga xam ne yàlla indi na leen suñu kanam. justement bu fekkente ne euh, yaakaar naa ne seen volonté la te yaakaar naa seen volonté lay doon. Mhm. jiitu nañ leen ci jàppale leen ñoom itam ñu ubbi ba nga xam ne nii li nga xam ne war nañ koo xam yépp te xëy na seen ak yedd ci woon ñu may les les anciens ñu jiitu ci politique jiite leen ci lii ñu xalaat rek pour le meilleur du Sénégal man loolu laa gis amul benn génération ba ñu war a exclure mais jeunes yi dafa jotoon nag pour ñu ñëw taxaw suñu kanam pour lii ñu mën nii ñu fexe ba ñu dàq ñu ko parce que koo gis boo sañoon sa doom gën la ñun lii ñuy def nii buñ sañoon xale yi gën ñu ko man Mm-hmm. en tout cas ñun loolu mooy suñu philosophie à ëpp jàmm ndax ay yaay lañu et noonu lañu mën a réfléchir jàmm ji am ci réew mi dem ba tey kenn am lu mu jàpp ñun ñëpp dañu koy liggéey si. Mm-hmm. on est dans nos bureaux. Mm-hmm. loolu am solo la ci réew. surtout en Afrique j'ai des amis yoo xam ne dañ daan wax ne problème Afrique ñu ngi tàmbali le lendemain des années. te xam nga ñoom jaar nañ ci. donc nañ sant yàlla ci li nga xam ne nii sew na ci réew mi dem di ñaan yàlla vraiment mu law. mu nekk loo xam ne lii dinañu permettre ñu gën a jublu ci liggéey bi jàppale yi nga xam ne ñii ñoom la yàlla teg suñu kanam ñu bañ a nekk di euh, luy diviser réew mi daal man wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñun société bi ñu teg ko ci suuf. merci parce que dara jaru ko fi. Mm-hmm. merci beaucoup. mu nekk jërëjëf ñu koy jaajëfal ajaratu Khady Fall Tall bu AFAO présidente des femmes de l' Afrique de l'Ouest nekk également it euh, ci plateforme bi di ëttu jàmm société civile bi la mhm. comme ni mu ko waxee ñoom def nañ ci liggéey bu am solo ëttu jàmm moo tax élection yi mujjee ci jàmm mhm. nit ñi xëy <laughs> euh, la presse a commencé également par ces différentes organisations yu société civile yi nga xam ne également ils ont mis en place euh, des plateformes pour alerter mais également wax ak tout le monde. Mhm. parce que plateforme yi avec les différentes organisations ku fa ne am nga sa mbooloo ci ginnaaw am nga say nit ñoo xam ne mën nga ci sukkandiku pour passer un certain message et message yooyu c'était important de dire aux Sénégalais que toll nañu fenn foo xam ne bu ñu moytuwul du sotti et surtout. par rapport ak événement yi nga xam ne jóge nañ foofu ces secousses qui ont qui ont qu'on a tous vécu entre juin 2021 euh, mars ba ci mois de janvier bi passé mm-hmm. donc il fallait dire aux gens attention parce que liy xew ci yeneen réew yi bu moy bu ñu moytul moo fi nar a xew te bu fi xewee également ñun duñu arrangé et elle l'a très bien rappelé d'ailleurs dans certains pays le principal problème mooy bu ñu voté ba pare ci lay problème yi véritablement di tàmbali et puis au Sénégal toll woon nañu foofee et les organisations de la société civile avaient déjà alerté ne ñu ngi ci moment yoo xam ne lépp lu mën a indi coow bu élection yi passé fi mu nekk nii ñu ngi koy togg ndànk-ndànk et il fallait que benn instant ñu